bi mu waxee loolu ba noppi yéesu dafa xool ci kaw ne jàkk asamaan ñaan yàlla ne baay waxtu wi tax ma ñëw ci àddina egsi na feeñalal ndamu doom ji ngir moom itam mu mën a feeñal sa ndam ndaxte jox nga ko sañ-sañ ci bépp mbindeef ngir mu may dund gudul jeex gi ñi nga ko dénk dund gudul jeex gi nag moo ñu xam la yow jenn yàlla ju wóor ji am te ñu xamit ki nga yónni muy yéesu Kirist wane naa sa ndam ci àddina ndax li ma matal liggéey bi nga ma santoon léegi nag baay ci sa teewaay feeñalal ci man ndam li ma amoon ci sa wet laata àddina di sosu xamal naa sa tur nit ñi nga tànn ci àddina te dénk ma leen bokkoon nañu ci yow nga dénk ma leen te sàmm nañu sa kàddu xam nañu léegi ne loo ma joxan ci yow la jóge ndaxte xamal naa leen kàddu yi nga ma jox te nangu nañu ko wóor na leen ne ci yow laa jóge te gëm nañu ne yaa ma yónni ñoom laay ñaanal ñaanaluma waa àddina waaye maa ngi ñaanal ñi nga ma dénk ndaxte ci yow lañu bokk lu ma am yaa ko moom te loo am maa ko moom te ñoom ñoo feeñal sama ndam nekkatuma ci àddina waaye ñoom ñu ngi ci man ci yow laa jëm baay bu sell bi sàmm leen ci sa doole tuur woowu nga ma jox ngir ñu nekk benn ni ñu nekke benn man ak yow bi ma nekkee ak ñoom daanaa leen sàmm ci sa dooley tur tur wi nga ma jox wattu naa leen ba kenn ci ñoom sànkuwul lu dul kiy aji réer ji ngir li mbind mi waxoon am waaye léegi maa ngi jëm jëmsi ci yow te maa ngi wax nii ci bi may nekk àddina ngir ñu fees ak sama mbég jottali naa leen sa kàddu te àddina bañ leen ndax li ñu mel ni man bañ a bokk ci àddina soosu ñaanuma nga jële leen àddina waaye nga yiir leen ci ibliis dañoo mel ni man bokkuñu ci àddina samp leen ci dëgg ngir ñu sell sa kàddu mooy dëgg ni nga ma yónnee àddina noonu laa leen yónnee ci nit ñi sellal naa sama bopp ngir ñoom ngir ñu samp ci dëgg te sell ñaanal lu ma leen ñoom rekk waaye itam ñi may gëm ëllëg ndax seen wax damay ñaan ngir ñépp doon benn baay na ñu nekk benn ci nun ni nga nekke ci man te ma nekk ko ci yow nañu ànd ba àddina gëm ne yaa ma yónni boole naa leen ci ndam li nga ma sol ngir ñu àndandoo ni ñu ànde man ak yow man ci ñoom yow it ci man ngir ñu gën a ànd nekk benn ba àddina xam ne yaa ma yónni xam ne bëgg nga leen ni nga ma bëgge baay bëgg naa ñi nga ma dénk nekk ak man fa ma jëm ngir ñu gis sama ndam li nga ma sol ndaxte bëgg nga ma laata àddina di sosu baay yow ku jub ki waa àddina xamuñu la waaye man xam naa la te ñii xam nañu ne yaa ma yónni xamal naa leen sa tur te dinaa ko gën a xamle ngir mbëggeel gi nga am ci man nekk ci ñoom te man it ma nekk ci ñoom